ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci taw bi nga xamante ne ni am na ci diwaanu Sénégal rawatina ci diwaanu Ndakaaru journal nag def ci ab jàngal bu am am solo parce que am na sax ay autopsie yoo xamante ne ni génn na daal di dëggal yi ni mel. Euh, moom mooy euh, taw yu metti yi nga xamante ni moom moo am euh, jamono ji ci dakaar ak li ko wër rawatina nag inondation yi nga xamante ni presque am na ci secteur yu bare baree bari ba tax na ki nga xamante ni moom moo ci ñàkkoon bakkanam doon wuyoo ci turu Basirou Saax tolloon ci 25 ans daal dinañ koy defal autopsie autopsie bi daal di confirmer li nga xamante ni moom la ñëpp tegoon seen bët maanaam ñàkk na bakkanam par noyade ci tunnel bu teer ba teg ci tamit nag fële ne ci diwaanu police bu caaro yi dafa inondé ba tax na ñi nga xamante ne ñoom lañ fa téye woon ak garde à vue dañ leen a daal di transféré ci commissariat bu Pikine Khalifa Sall nekk jamono ji moom moo jàkkaarloo ak population bu Cambérène Sonko di appuyé waat bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy sinistre yi. waaw yaakaar naa nag yëfi fi mu toll nii doonatul yëfi politique waaye yëfi jàppale tool yëfi yëfi jàppale wante ku ci nekk war ngaa indi sa apport ci ñi nga xamante ne nii jàpp nga ñu ni war nga leen a mën a dimbali nga ñëw dimbali leen parce que tolloo nañu foofu noonu tolloo nañu ci jamono jàppale wante. toll nañ ci jamono defal ma def leneen li nga xamante ne mu ngi ci journal bu Les Échos muy maison du Sénégal à New York mu nekk projet bu yaatoo yaatu boo xamante ne ni journal bi ki nga xamante ne ni moom moo ko initié muy Pape jeeju mi ngi réclamé lu toll ci 1,3 milliard waaye nag am na ñum ci cité. benn projet la woon ñu ko doon woowee maison du Sénégal à New York maanaam benn euh, loo xamante ne Sénégal moo ko waroon a moomal boppam ñu waroon ko sanc ca diwaanu New York Pape Diédhiou nag nekkoon euh, ki nga xamante ni rek moom moo doon euh, architecte bi mi ngi réclamé lu toll ci un milliard ak lu topp Wade Macky Sall Atepa Birima Mangara ba rawatina ki nga xamante ni moom moo di Viviane Wade. yaakaar naa ne am na solo trop ndax nekk na loo xamante ne bu dee doomu réew mi ñoom ñoo koy mu nekk ci diwaanu états uni loolu moom lu ñu war a taxaw la parce que doomu réew mi Amina Ndiaye bari nañ ci diwaan boobu noonu bu ñu fa amee kër fa la dëkkuwaay boo xamante ni ñun ñoo ko moom dinañ yombalal lu bare. dinañu yombalal bu baree baree bare rawatina sax bu ñuy saytu sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk dëgg la tey de euh, doomu Sénégal bu amee loo xamante ne day gës du ko gis euh, sénégalais moom ko day gën a dal xelam. day gën a dal xelam yaakaar naa ne nekk na lu am am solo waaye li nga xamante ne ni moom la journal bu. le quotidien daal di indi Amina Ndiaye muy étudiants yi nga xamante ne dañoo boycotté classe yi waa université Gaston Berger bu Saint-Louis fi mu toll nii seen bëgg-bëgg wala seen ay décision yi ñu jël mooy toog ci seen ay néeg. wàllum jàng beeg jàngale bi ba suñ doon yàlla yi tey jii daal day euh, baraada de fer ak nguur gi ginnaaw bañ leen waxaatee ni ñëw tàmbalee li nga xamante ne moom moo di seen cours bañ demee nag fekk ñu fa matukaay yi nga xamante ni moom moo war loolu waraloon na waa université Gaston Berger bu euh, Saint-Louis daal di boy boycotté li nga xamante ne moom moo di cours yi bañ ko boycotté nag euh, délai ba jeexoon na waaye dañoo fa yéene rek renouveler waat ko maanaam di toog ci li nga xamante ni moom moo di seen ay chambre am na solo torop Amina Ndiaye waaye ba tey ci Le Quotidien mu daal dañuy indi ab gént goo xamante ne ni rêve la def ni Sénégal mu ngi rêvé recevoir 4 millions de visiteurs maanaam li nga xamante moom bi dañu koy war a bëgg a ubbi. tourisme bi dafa nekkoon activité boo xamante ni dafa taxawoon li nga xamante ni moom moo di jàngoro yo coronavirus bi ba tax na hôtel yi lu ci mel ni Île de Gorée ak euh, yoo xamante ni ñoo ko doon jooy euh, fu nekk jamono ji nag tàmbale waat nañu relancer li nga xamante ni moom moo di bi te jàpp nañ ni bu soobee yàlla bu fekkante ni suñu borom li mu may woon nangu ko ñoo ngi euh, rêvé accueillir lu toll ci 4 million de visiteurs. 4 millions de visiteurs waaye liggéeykat yi nga xamante ne ni ñu ngi ci diwaanu Thiès fi mu toll nii Amina Ndiaye am na njàkkare ak tiis bu nekk ci seen boor. ñàkk rek euh, tiis ci liggéeyukaay ya nekk ca diwaanu Thiès li nga xamante ni rek moom moo di euh, société industrielle la fa nekk ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey foofu euh, conflit am na fa waaye tamit conflit interne am na fa boo xamante ni mbirum foncier la ñu koy cow seen biir diggante ñu ko moom ak travailleurs yi. yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ñu ko waxtaanee ndax bu ñu ko waxtaanee rek incha allahu rabbi mun naa jàll ci boor. ku ci nekk la nga ca moom nga daal di koy jël mu daal di féete boor waaye ba tey rek Amina Ndiaye ci journal bu record mu daal ñëw ak ñun ci li nga xamante ne nii mën nañu ne match bu am am solo la maanaam Ligue des Nations deuxième journée bi tey lay am à partir de 18h45 diggante France ak Croatie tase woon nañu nag en 2018 ca mondial noonu la demee moom la journal record daal di xëy fësal mu ñuy fàttali rek la nga xamante ne moom moo xetoon xewoon ca mondial 2018 doxoon ci diggante France ak Croatie dafa mel ni moom mooy daal di amaat ci Ligue des Nations bi deuxième journée bi ndax ñaari équipe yooyu ñoo jongante waat tey jii ci 18h45. nañu ko xaarandi ndax nekk na match bu am am solo boo xoolee Croatie digganteem ak Portugal daf koy ñàkkoon bu yàggul dara mu war a ñëwaat nag jàkkaarloo ak français yaakaar naa ne war nañoo redoubler d'effort. war a yokku cere daal di ci dolli ñeex Lionel Messi nag Amina Ndiaye ginnaaw ba mu fas yéene toog ci club bu Barça la ñuy laajte rek mooy ndax Barça ba da koy takk ba léegi wala. da koy takk am du ko takk loolu mooy nekk li nga xamante ne moom la njëkk di laaje ni ginnaaw Messi ba mu fi annoncé li nga xamante ne moom moo di départ mu journal bi dafa laaj ba xam ne confiance bi nga xamante ne amoon na ko ci biir équipe bu Barça est-ce que ñàkku ko est-ce que jamono ji risque wul ñu daal di tekki li nga xamante ni moom moo di brasaram moom moo di brassaaram waaye Mbaye Diagne wala Mbaye Niang l'international sénégalais l'attaquant sénégalais mi nga xamante ne mi ngi ci ren ñu ngi doon dégg ba ba tey ñu ne day dem ci club bu Marseille mel ni loolu dafa mën fomb noonu la demee journal record daal dina ci ñëw rek may ña ne woon nañu day daal di dem ca club bu Marseille waaye nag prix bi nga xamante ni moom la ñu fixé woon pour moom dafa mel ni moom moo diisoon ci noddu Marseille ba lu ci mënti am daal jàpp ne may ña en retour vers l'étranger waaye club bu mu jëm moom moo ñu yem. club bee ñu yéem nag kon bu nekkee dana jóge ci douane France nag feneen fa nga xamante ne ni moom bay Diagne dina fa dem yaakaar naa ne nag loolu ay mbiram la journal bu source a daal di ñëw ak li nga xamante ne nii Amina Ndiaye ci réew mi la ñu ne Sénégal moom mooy deuxième pays bi nga xamante ne nii bokk na wala ni mu géré coronavirus bi géré na ko ci anam bu jaar yoon noonu la demee journalu Source A moom moo xëy daal di koy wax ginnaaw classement bi nga xamante ni euh, defu nañ ko au niveau mondial euh, ci jàngoro yo coronavirus bi Sénégal lañ daal di classé deuxième position Macky Sall ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ñi nga xamante ni li nga xamante ni géré nañ ko jàngoro yo coronavirus bi nekk na loo xamante ni rafetlu nañ ko au niveau mondial. au niveau mondial moo tax ñu ne Macky Sall le génie yaakaar naa ni def na loo xamante ne ni kon liggéey bu amam solo la waaye bravo à nos médecins ñi nga xamante ne ñoom ñooy faj ñi ngi bàyyi seen waar bu baax a baax a baax ñu gérer wàllu communication bi def nañ ci communication bu am solo waaye population bi itamit xeex nañu ak seen nafsu ngir jàpp ci ba li yëpp yegg si fii kon nañ ko continuer te xam ne xeex bi dafa commencé gul sax nag bay jeex ndax corona Amina nee naa à chaque fois xajul rek ci réew. ndax coronavirus xajul fenn du ci nekk du ci réew du fenn foo xamante ni xaj na fa ndax gis nañu ba mu dikkee wàcc ci àdduna bi ba tey lu bari dafa taxaw lu bari dafa mujjee yéeme ba tax na nañ ñaan yàlla rek ba mu ñu ko dàqal mu dem Amérique ba mu ñu ko dàqal mu dem Espagne mais nañu ko dàqal mu daal di fii jóge daayi man fa mu jógee woon kay la war a dellu rek suñu borom daal di koy jël comme moom moo ko sàq mu daal di koy faataat mu daal di dellu waaye Amina Ndiaye journal bu source ba tey tey dafa deux ans wax na ci sport waa di wax ci wàllu làmb Bombardier mi nga xamante ne ni moom moo def lu kenn mësu def ci làmb moo fi nekk roi des arènes ñaari yoon jóge ci fa nga xamante ne ni du ci capital bi maanaam jóge mbuur ñëw Dakar impliqué boppam imposé boppam ba doon lim doon ci làmb muy waxaat ci combat yi nga xamante ne ni xew na ak combat mi ñu koy tuddal waaye nag wax na ci CNG bi laaj nañ ko ci Mouhamed Ndao Tadjane ndax war na koo mën a gérer moom nee gisul loolu. loolu daal euh, B52 de Mbour bi daal di yëkkati kàddoom di wax daal dinay wax ci Tyson mi nga xamante ne ñu bari yaakaar nañ ni war naa mën a nekk euh, président wu CNG wax na tamit ci li nga xamante ni moom moo di combat contre Eumeu Sène wax na tamit ci retraite bi nga xamante ni euh, moom la ñu fixé maanaam âge retraite bi nga xamante ni moom la ñu fixé mbër yi ak MMA bi B52 de Mbour wax na lépp ci source à page 8. ci suuf su à page huit nee na Amina Ndiaye quarante cinq ans la mbër di retraité war nañ ko yokk yóbbu ko cinquante ans sax wala sax ba mbër mi dem ba xam ne mënatul bëre mu bàyyi Tyson warul gérer li nga xamante ne ni moom mooy seen euh, CNG parce que Tyson bokkul benn yoon ci seen ay association mosul dégg Tyson kaasal benn mbër ay kàddu bombardier la combat am ak Eumeu Sène am na yeneen adversaire itamit yoo xamante ne ñu ngi ko koy waxal waaye ñu dem nag ci journal bu suñu làmb dañu koy daal di jeexalee mu daal di fësal ki nga xamante ne ni moom mooy Mame Waly Diom di xarit intime ci Yaxya Diop Yékini borom les 15 ans de règne borom gëwuma daanu daan rek laa gëm su may ñëw damay jaar Joal ak Baasul kooku nag nga xamante ne ni am naa lim def ci làmb xale yi defaguñu ko te gëwuma xarit dinañ ko gaaw a def moom la ñu indil ci journal bu suñu làmb. kooku mooy Yaxya Diop eh, Yékini ñu daal di fësal benn xaritam benn doomu nayam ñu koy woowee Mame Waly Dione moom nag mu daal di ñëwaat lekk ci combat bi nga xamante ni moom moo taxoon kii nii di Yaxya Diop daal di perte koronam doxoon ci digganteem ak Balla Gaye da na ne période bari boobu ñu bari bëgg ñu woon lu dul Yékini daanu rien que yàgg bi nga xamante ni moo fi euh, la fi yàggoon moom moo sonaloon ñu bari waaye jàpp na ne waa Diofior day metti rek waaye chaque jour ci ginnaaw Yékini la ñuy nekk euh, li nga xamante ni nag moom moo concerne Aliou Sakh jàpp na ni moom bu fekkante ni moom moo nekkoon Alioune Sarr dina jóg nak daal di dem yoonam waaye li nga xamante ni moom moo di xam-xam bi mu am ci biir CNG doo ko war a partage at ki nga xamante ni moo koy uutu. yaakaar naa ne doon na lu am solo Amina Ndiaye waaye boo xoolee corde yu mu yëkkati yëpp ci Balla Gaye numéro 2 la ñu ko yëkkati moom nag moo tax journal bi fësalaat Balla Gaye numéro 2 pour am forme bu ëpp wala forme bu gën a garaaw forme yam daan am dafa ànd koo xamante ne Amina Ndiaye mosul sumee ko ñu jéppi ko. mosul sumeeku ñu ne entraîné wul muy Balla Gaye numéro 2 mbaroo di pire nga xamante ne ni heure bu sumeekoo boo xoolee tànk yi di nga bëgg danaan la damay arrière wala ma marche kanaara jàmmalaay ba fee nga xamante ne moom mooy yoof yaakaar naa ne mook Balla Gaye numéro 2 nag bu ñu àndee Amina Balla Gaye mën naa am forme bu meilleur ba mu daan am loolu journal bi wax que ni Balla Gaye de jamono ji mi ngi ci ginnaaw Baboy mooy mu koy jàppalee ci li nga xamante ni moom moo di entraînement yi pour mu mën a retrouver waat benn forme bu comme combat bii nii di ñëw incha allah. yaakaar naa ne am na solo ñenn ñu bari dañoo yaakaar ne wala dañoo bëgg làmb ji am fédération doon ci wax ki nga xamante ne nii naa Ndiaye bu làmb yegg see fii da cee bay waaram bu baax a baax a baax daf cee yokk grain de sel ndax dañu ne ko yokkul yow yaa wàññi âge békaay may bi bu ñëwee dafa yokk moo tax mu ne làmb ji. li nga xamante ne moom mooy CNG moom moo ko war a diriger ku ci nekk la nga ci war a gérer nga gérer. noonu la demee El Hadj Bekkaay Mbaye euh, moom mi nga xamante ni fekk na làmbi démb fekk na làmbi tey daal dina yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci mbirum présidence su CNG bi parce que ñu ci bari dañoo jàpp ni euh, euh, présidence bi dañ ko war a dindi daal di koy def ab fédération jàpp na ne fédération ba nag nekkul solution dafa préféré que làmb bi daal di am CNG bu koy diriger. bu koy diriger ndax nee na làmb du mbër kase du waykat kase du tëggkat kase du reporter kase làmb ñëpp ko bokk yaakaar naa ne leeral yi loolu rek la woon tey. waa leeral yi lii rek la woon li lañ leen indiloon ci seen xibaaru revue de presse yéen mbokk yi ñuy bëggee dañu safoo saa su nekk ñoo ngeen di di jëfal bu baax a baax. di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha